waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk am nañu mbégte ak contentement bu yaatu seen biir plateau Kouthia Show ka nekk ci réalisation bi di tonton Maak feggoo yaawoo gervais ci caméra bi ingénieur toog ci son bi mbokk yi Yaya ma ngay xaqataay di li am ci yaana maar ak Macky Sall nee na àqam commencé na dal Macky gisugul dara Yaya Jammeh ca biir Guinée Équateur moog Alpha Condé ñu ngay waxtaan waxtaan bu am solo jëm ci li nga xam ne mooy kokkali ak ñaawal waaye mbokk yi daabo bi nga xam ne moo nekkoon ki Yaya solo sonoloon ca élection Gambie moo raw ca député ya mbokk expert en démocratie coow li am lan moo ko indi tontu yi lan moo ko indi jëmale tontu ak laaj ci Sénégal lu koy yóbbu ci kanam mbay dikkal dikkal mbay kaay mbay kaay kaay kaay waaw waaw génn fecc bees. dafa génn fecc bu bees. sururu stade <laughs> démb. sururu. Euh, euh, mais mais mais. kan ma ko génne. mais tonton Bécaye Mbaye. Ah. mais costume yi ngay sol fan yi ah <laughs> mais mais mais. mais Mbaye mais tonton Bécaye costume yi. <laughs> non Mbaye Mbaye. mais non jox ma bula bi léegi maa la ko ñaan. Mbaye sama noppi neexul de kan moo génn fecc bees nga ne. Kara. Kara ban. Kara mu ngi toj wax. ban Kara. mais da ngay leer benn Kara waaw. non Kara dafa kontaan si moom. turu. cururu la génne. ah cururu moom biir buy daw la. mais Kara Demba. waaw non Kara Demba toog na stade. ah. balaa balaa ma bala di ko jox sa di ko bokkal <coughs> Kara am na xaalis de tey. Mbaye. Ah. yaa ngi tooñ de Kara ah. sécurité benn nga ne day fecc bees cururu. cururu ba bala dafa kontaan si moom. d'accord merci loolu fin bi dañ koy leeral. Mbaye. Mbaye parfois yaa ngi Mbaye. parfois yaa ngi waaw. permégaay costume waaye yow bàyyi père ba kay mbay ak costume mbay parfois yaa ngi tukkal àdduna eh! style dalee ko ci allure dalee ko ci black dalee ko ci énergie dalee ko ci glamour ak bi nga xam ne mooy jamaa ñu ngi tukkal àdduna man style style est-ce si xam nga ni xale yu jigéen ñi sax suñuy xëy fajar ñuy si ñuy xëy six heures du matin ñuy xëy six heures du matin ah. tey laa doog a xam ah bon léegi ñoom ñëpp style la ñuy def ma xool xoolal nañ commencé si jam bii nga xam ne mooy orange bi jam jaara mooy jamaa bi style jamaa ah. mbay bi baax na sama bopp laay tuur du la tuur ah, doo ma tuur sama bopp laay tuur voilà bii nag mooy jamaa mbay waaw très mooy bi nga xam ne couvert dafa orange bu ci tegu waaw man na mooma boisson ah dama faale boisson énergie man mbay li kenn ko naan de pour yaram la non non mais mais ma boisson énergie waaau parfum énergie waaw sa xanal sa poos la wax nga dëgg wax nga naa maanaam xet gi ci boppam bu dee xeeñtu da ngay ànd ak énergie waaw kii pour góor la kii pour jigéen la énergie rapidement waaw ñàkk xam rek mbay pour mën a ngay pompe sa gémmin la ilaha illallah mbay allure rek nii allure style la allure ni góor di amee énergie noonu la jigéen di amee allure <laughs> ñëwal ñëwal ma xool sa allure non dañu fa weer <laughs> bii mooy bu rose rose allure rabi mbay ma ñëw waaw léegi ñu dem si kii laay black black ban black génnoo black de sa bët yi neexul de eh, pistil la ah, ah, spicy spicy bii nag góor ak jigéen waaw mbay ñoo ko bokk man nee naa la man xetu góor bu la neexee utal xetu jigéen bu la neexee utal marque style bii waaw bii mooy spicy lay lay la laaw bii mooy glamour glamour nee naa la bii jamaa la jamaa boo ko mënul am. waaw mënoo ko téye mënu ko ko tuuroo. waaw mbay bi style bii mooy glamour. waaw rapidement mbay. ndeysaan. waaw ñu jóg xanaa sa blague dañ ko. sama blague yi kan man dama jékki-jékki man. non xoolal parfum bu neex kenn du ko werante dañ koy ah. sàcc loolu du yoon la. boo ko jël sa jëli boo ko jëlu sax jinne yi jël ko mbay loolu bu ko warante bàyyil <laughs> ah man dama am la wax parce que ki fi nekk ki fi nekk samedi ba roñ nañ ko ba <laughs> non lu mu teg si ba am na yoo xam ne jarul coow quoi del bàyyi gars di la black mbay waaw del bàyyi di jël loolu si la bokk liggéey bi dafa jaar des fois nee naa la man sax maa si am fit waaw ba ama jeexalu ko waaye ki fi nekk samedi bu waaw waaw foofu dafa jeexal non mais noonu la noonu la si la bokk si la bokk mbay waaw téléphone bi nga xam ne mooy Camon Fix yaa koy wax kamoon CX. waaw mu ngi yëngal àdduna. waaw bii nii boo ko amee. waaw yu leer nañ. waaw kaaminu alxuraan. waaw document. waaw mémoire étudiant. professeurs yi. Ah. lu ne mën nga ko ci dugal. kon gannaaw man naa bañ a jëndati ay ay ay kii man lu may mën a jàng rek kon mën naa jënd téléphone bi. dugal ko ci biir dugal ko ci biir da koy enregistré. ba pare sa moo ko mën moo ko mën a ba pare nag li ci gën a neex. waaw ko ko sàcc nga jàpp ko. laa ilaaha illallaah am na code boo xam ne. Ah. su la neexee nga ne cukur cukur. cukur cukur cukur cukur cukur moom nga ciy bàyyi. ndeysaan loolu cukur soo koy seet waaw da naan cukur cukur cukur cukur mu sone nga xam ne ne téléphone cukur cukur xanaa waxu chinois ah man da ci karaalaa ko déggee waaye xaw ma ne am na fecc wuy ma man garaaw ma ma ma yëm teewul na nekk en sécurité ah. téléphone la boo xam ne chaque jour mun na la génnal loo xam ne chaque jour mun na la ci génnal loo xam ne amul ci beneen téléphone yi mbay madaar ñëw na eh. soo ko amul ci liquide mun nga ko am ci pëndax numéro un ngi nii. waaw roy duñu roog pire. ñii xoolal ñii ils les meilleurs. au Sénégal en Afrique et dans le monde. Madaar ak Noura ñoo bokk ndey baay. waaw tur yee ute. tur waaye nag jëf ji benn la. dama a kii. ba pare mbay. waaw soo amul njëgu Madaar. waaw soo amee pëndëx bi rek jàppale nga Madaar. bon ña nga ne si lay sangu. waaw non xaw ma sangom déet mais jàppale daal. protection bu rafet la. te am na solo mais mbay. waaw gis nga kii nii. waaw li ko tax a jóg mooy setal lépp lu oos. ak lu ës ak lu neen. te nag xoolal damaa laajte keroog nee ah, waaw mën ngay fóot ba sonn. waaw nee na sa loxo du dagg. non non non ay dermatologue moo leen jox ay autorisation. yoo xam ne sa yaram du yàqu nga naa ma ay yoxul loxo tegal ma nii ma ñëw après sama ñu ñu may ko mbay. waaw. soo waxee ba poussière bu dugg sa bakkan. waaw ba ngay fatt. bii mooy l'écran di meew boo xam ne xale ak mag xolal lool <laughs> kay weesu na dagg xolal kanamu ndaw si ni muy melee ne lu muy briller <laughs> loo ñuul ñuul ñuul da gën a leeral loo xees xees dalay gën a leeral xees boo xam ne naturel la ci meew meewu nag pire waaw xanaa xamoo léegi man bala maa tëdd damay naan meew ba pare mbay waaw gis nga bu mag bi waaw ak ndox mi waaw ñoo bokk ndeeg baay est-ce que xam nga man fu ma déggal góor waaw damay daw dëkk bi damay génn Sénégal wala mooy tif tifi mais léegi. si gis naa l'écran rek. waaw koor na ñëw na sax pare naa. wuyu ma waaw soo ko xoolee. waaw lii ngay am. waaw ah waaw. li ne fii. ba sax ñoom mooy bii. ndeysaan dañoo xa dañoo liggéeyal xale yi. waaw liggéeyal mag ñi ak màgget ñi liggéeyal màgget ñi. mbay yaay yaay jaara mbay mbay mbay. naa ko maa la invité cere tey cere. ah cere oui man léegi suñu jugee si l'écran. waaw si l'écran def na liggéeyam. ba nga xam ne ñun yow expert bu mel ne yow. waaw dara mënut a laa jaaxal si produit. waaw kon guddal fan léegi ñu nem si dolli ma gannaaw lan nga xam si dolli ma. dolli ma waaw. dolli ma lan. dolli ma ja dolli ma. dolli ma soow. waaw dolli ma soow. soow dolli ma. waaw man mi dëkk Daara Jolof maa ko xam. waaw ndax Daara Jolof Daara Jolof am Linguère waaw jàpp Barkédji waaw Fuuta waaw Ayralaaw ñànk iji waaw Pété Dingiral Kaskas waaw Kaskas dëkk yooyu yëpp dafa nekk ay dëkk yoo xam ne waaw seen aada cosaan mooy gan ñoo ñu ratal la meew waaw woyal ko mu nekk soow soow soow bi nga xam ne mooy dolli ma waaw soowu Sénégal la pire waaw pire waaw te nag di ko jënd yaa ngi participer si jàngu xale yi ndax ñoom lu ñu am dañ koy delloo ci xale yi nga xam ne ci réew mi koy daara Jolof wuy ma waaw ko nag waaw jàpp fu ne dugal ko fa mu ne maa lànk man daal Kouthia moo ma doy. Ah. maa lànk Kouthia moo ma doy. ma ne ko plateau yi fees na dañu affaire yi. suba xale yu jigéen dañuy togg laax. Ah. ñu indi soow dolli ma. waaw lekk ci plateau bi. jeex na waaw euh, Amady Amady. dédicace nuyu naa koy nuyu koy maa ngi koy nuyu. Amady ak Leena Samb. Leena Samb say xarit ay doomu Amady Badiane rek ndeysaan nuyu naa la bu ah, baax waaw waaw waaw waa eh, waa AIC bi yëpp nuyu mbay mbay waaw léegi. Euh, waaw tàllal la sa loxo. parce que cat dafa gaaw xam nga xam nga Canada dafa manqué yow tamit mbay Canada bi lu ne mën a diggante eh, eh, eh, wuy ma papa papa talal sa loxo yaay damay maa ngi damay dem Canada dégg <laughs> mbay mbay en Canada waaw ba talal sa loxo waay rabi sa kaw nu mu tudd kii mbay xanaa li ma la ñaanal intéressé wu ñëw dégg nga man damay dem sama sama ñaanal sama ñaanal sama papa léegi léegi parce ma gis may amin <laughs> nel amin nel amin gannaaw xaw ma lu ma ñaanal bàyyi ma. mbay loolu dana amin mbay dana amin. wóorul dem dem ma dem mbay dana amin. wóorul yéen i woo ma dem. mbay mbay dana amin. wóorul wóorul. yaay jaam. wóorul yaay jaam. yaay jaam. doo gor. yaay jaam. doo gor. doo jaam. yaay jaam. ضريحة لروض القطب am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak euh, sponsor yi style ci allure style euh, tamit euh, ci li nga xam ne nag moom mooy black énergie diamant glamour ak Space yi ànd ak téléphone bi nga xam ne mooy Tecno Camon CX bi nga xam ne li ci nekk ci ay xibaar bés bu ne ñu jox leen benn te boo leen xëy rek gisu leen jaaxal ndax mbir mu doy waar la mbokk yi Madar ak Noura c'est la famille de la propreté mais boo ko amul en liquide am na version poudre bi nga xam ne nag moo yëngal jamono. yaa gervé mooy l'écran l'écran lait entier la boo xam ne bu fekkee sportif na baax na pour sa respiration waaye force ak vitamine ak énergie baax na ci cere baase baax na ci meew le matin rek bu tàngee neex bu seddee neex man xam naa ci dara mbokk yi nag ñu am mbégte contentement di nuyu suñu papa sëñ Sidi Makhtar Mbacké di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di ñaanal tamit suñu maam Abdoul Aziz Sy Al Amin fan bu gudd ak wér gu yaram ak suñu baay ki nga xam ne nag moom mooy Serigne Mbaye Sy Mansour porte parole ba di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram Serigne Babacar Abdou Aziz Sy moom tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram mbokk yi ñu am mbégte contentement di ziar suñu papa alaaji Cerno Sama Samora di ko ñaanal jàmm Cerno Madani Muntaga Tall Cerno Bokar Alpha Ba Habib Gaye euh, Mouhadama Serigne Mansour Sy alaaji Cerno Nourou Tall Cerno Abdourahmane Bari ak Cerno Hamdou Aw alaaji Ousmane Ndiaye Waliou Kamin ak suñu baay alaaji Basiru Baara Mbacke dëkk ci HLM Guédiawaay Serigne Abo Mbacké màggalu Kazu Rajab bi ci boppam xam nga ne moom mooy xalifu sëñ Fallou ci kaw suuf ñu ngi koy ñaanal ñu egg ci jàmm daara cee ñaan jàmm ñibbi seeg jàmm sëñ Abo sama xarit sama wóolër la sama papa la ñu ngi koy ñaanal jàmm ak sëñ sëñ euh, Abdou Karim Mbacké ñu ngi leen di ziar waaye tamit ñuy suñu bàyyi alaaji Seydou Sow dëkk ca Passy di yeewoo fii ci Dakar yàlla may ko jàmm ak ki nga xam ne mooy cardinal Théodore Adrien Sarr ñu ngi koy ñaanal tamit carême bu baax ak neex monseigneur Benjamin Ndiaye ñu koy ñaanal tamit jàmm mi nga xam ne moo jiite jàngu bi Euh, ci barke Yesu Christa lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci Yesu Christa daanañ koy nangul ñu am mbégte ak contentement di nuyu tamit euh, maître Fatima Fall responsable politique nekk ca PDS dëkk ca Ndar jàpp ñaamburam jigéen ju am sutura waaye suñu bàyyi sëriñ Mansour Sarr chef religieux dëkk ca budi di yeewo ca Tiwaawan ñu di nuyu tamit suñu yaay Adja Kine si bu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum yal na yàlla yokk leeram ca ajana yi gën a kawe nuyu nañ ko bu baax sant nañ ko waaye di nuyu tamit waa ñànk idi bi nga xam ne nag gàmmu international ñànk idi vendredi ak samedi bi woon mu nekk gàmm boo xam ne ñëpp teew nañ fa cerno yëpp teew nañ fa am ci mbégte contentement cerno mu ngi gërëm ñëpp cerno Mamadou Adama Gaye xalif bu cerno Adama Gaye sant na ñëpp ñi nga xam ne teewoon nañ fa waaye sëriñ Ibrahima Kunta ibnu Cheikh Euh, muhaddamal Moustapha Kunta ak soxnam ajaratu soxna Biga Gueye ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu tamit Serigne Sidi Mbacke alxuraan dëkk ca jàmm gën jagsaaw ak ki nga xam ne mooy Amadou Diallo lam taalibe ñu ngi koy sant di ko gërëm moom Serigne Sidi Mbacke alxuraan di nit ko yàlla baaxal di nit koo xam ne wax dëgg yàlla waaliyu kaamin la ma ngay jàppale xale yi nga xam ne ñoo nekk ca jagsaaw jàmm gën rawatina nag écurie Lansar boobu nga xam ne mbër yu bëri ay taalibeem nañ ko ci mel ne ñoom Mama Lamine ñoom Balla Gaye Junior Feu Rouge ñoom Siteu bul bul laal ñoom Kona bi nga xam ne ma nga dëkk ca euh, pic euh, fa la nu mu tudd euh, Tiawoon Pël ñu naan ko PT ci cité su ñu xarit la suñu soppee la moom Kona yal na ko yàlla defal jàmm ndam gi mu am démb mu doon jiglaayam waaye lépp si sëriñ Sidi Mbacke alxuraan ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram mbokk xam ngeen fu ñu jëm ñu ngi jëm ci expert en démocratie ndax réew mi yëngu na te actuellement ni li ko yëngal mooy cooli yi yaanaa maar ñoo génn rek mu mel ne àdduna day waaj a tukki kenn ku nekk di yëkkati ay kaddu yu ñaaw di ko teg ci gune yooyu te wax dëgg yàlla ak lu xale yi mënta mel la leen metti te askan bi gis ko ñu wax ko loolu daal yëngal na jamono foogoon naa ne nag am na lu koy war a yëngal waaye li ko yëngal nekku ci dema sa actuellement nag ki nga xam ne mooy expert nga xam ne gëj naa ñëw émission Kouthia moo ñëw tey pour wax lan mooy démocratie ak lan moo dul démocratie ak lan mooy éthique ak déontologie ñu seeti ki nga xam ne moom mooy kii waaye mbokk yi euh, ngeen baal ma gis nga manquant dañ koy seenu ci ay nit yoo xam ne dañoo xaw a euh, am xel bu xaw a kii rek mais vrai manquant boo leen ko bëggee xam tonton Mag may ma benn manquant foofu manquant dëgg anamu voilà très bien kooku ngeen gis nag mooy Fatima Evans moo nekk noonu très bien ñaw merci tonton mag ñaw c'est très bien manquant ngi noonu voilà très bien ñaw lool kooku na ngeen gis foofu xam luy métier am fii cinq quatre trois plateau moom lay liggéey TFM loolu rek la fiy liggéey loolu rek ki ñu ware a mu fecc loolu mooy liggéeyam fii quatre cinq cinq quatre trois plateau weer bu dee mu tàll ñu fay ko TFM moo neex ñu seeti nag expert salaamaaleykum salaamaaleykum yéen a ngi tooñ parce que yàlla ñeme wu ko yàlla suma xarit la dama ne yaa naa maar yaa naa maar génn rek wax ay ponkali ponkal di tontu mais dama ne am na loo xam ne bu amee ci réew dañ ko war a nangu parce que ki na la lii neex na ma nga génn kii lii neexuma mooy wane na nit ku nekk am nga droit sopp lii bañ lii dama ne yaanaa maar ah. ay jeunes la yoo xam ne ñu ngi am diggante vingt cinq ans jàpp quarante ans mm-hmm. Mm-hmm. gouvernement bi ñi nga xam ne ñoo doon tontu yaanaa maar ñi ci ëpp ñu ngi commencé am quarante ans jëm soixante cinq ans soixante dix ans mais pourquoi yaanaa maar joxe seen xalaat immédiatement ay ponkalu ministre ay responsable yoo xam ne dañu waroon toog ne temm bàyyi waa COJER ku ci mel ne ñoom Thérèse Faye ku ci mel ne yeneen xale yi ñoom Matar Diop ñooñu daal leen tontu parce que ñoom ñoo bokk ak ñoom génération waaye du ay ponkal yoo xam ne dañu am responsabilité waroon xool état waroon lijjanti li nga xam ne moom lañ leen jox ñuy tontonte ak ay xale yoo xam ne ñoo ñu ak lu ñu munti mel ak lu ñu munti doon waruñu xool seen jikko dañu war a xool seen message parce que il faut comprendre le prêcheur celui qui prêche waaraatekat bi su la waxee ne naan sàngara dafa aram wara sàcc dafa aram nga gis ko ci benn baar bul ne ah kii li may aaya da koy def no déglul message bi mu lay wax nga topp ko waaye moom comportement bul ko topp ah dama ne Y'en a marre ils ont le plein droit de dire ce qu'ils ont vu ak li ñu gis mais bu fekkee ne sax ay drogué nañu wala ñu nekk ay corrompu ñoom c'est la personne de personne personnelle de Y'en a marre mais le message de Y'en a marre c'est pas un message corrompu c'est pas un message drogué c'est un message bo xam ne ñi koy dégg ñoom ñoo ko di ko parce que ba ñuy wax mandi wuñu tërëfuñu ba ñuy wax wane wuñ ne dañ leen jox xaalis mm-hmm. nit ki nag boo koy accusé danga nga indi ay preuve yu leer soo ko indiwul nag boo leen demee ci yoon yoon day atte te bu yoon attee bu lépp leeree gàcc day feeñ yàlla bu mu féetee ci mag yi xoolal ay ponkal ku ci mel ne Mimi Touré mm-hmm. tontu na mm-hmm. ku ci mel ne Cissé Lo tontu ku ci mel ne euh, Yakham Thiam yaa xam mbay tontu na ku ci mel ne Mor Ngom tontu na ku ci mel ne Mbay Ndiaye tontu bu buñ ko doon lim tey ay ancien premier ministre ay responsable ay ministre ñoo tontu ay xale yoo xam ne musuñu nekk sax député dama ne yaanaa maar ils ont le droit de dire ce qu'ils ont senti mais aussi la réponse dañ ko doon xaar ci la jeunesse apériste ñoom ñoo waroon tontu waa yaana maar mais c'est pas des ministres yoo xam ne des responsables yoo xam ne tey dañoo waroon taxaw temm pour mun a défendre li nga xam ne mooy cause présidence de la république mais di tontu nag ay xale ci tontu yoo xam ne teguñu ko fenn dama ne dama ne lu tax lu tax ñuy wax ne politiciens yi waruñu cee rax mais ku woote ay politiciens gis ne woote bi ngay woote arrangé na leen dañ ciy ñëw mais waaye yaanaa maar fi la leen ab Ablaye Wade tee ndullu leen ba ñuy bëgg a dee Simon fii lañ ko dóor ba yaram bi yàqu Fou malaat fii nañ ko tee torturé ko te pourtant ñi leen torturé ña nga woon ca manifestation ba ah, te ba ñu yéegee kenn yuuxuwu leen waa nag Macky sàll bu amee xel su bëggee tollanti ah. am xel day jël prise de conscience mm-hmm. woote assemblée ñoom seen biir ñu jàngat li xale yi wax xool li ci baax ak li ñu war a def parce que bu ñu xeeb ñi fa déplacé woon ñëw réew mi ci boppam kenn amatul jot bu ñu demee ba ay nit di déplacé wu pour déglu ay nit c'est parce que am na lu leen naqari le président Macky nag ci lii dañ ci war a jàngatee mais ñi lay défendre naan ñi ay drogué nañu ay corrompu nañu nañu nekk parti politique ñu bugguñu la ñi la bëgg mooy ñi lay wax ne jàngatal ci lii defaraat parce que ñoom sax xale yi wax nañ ko nee nañu Macky Sall c'est pas trop tard de refaire ah may nañ la chance pour nga jekkandi jagadil ah toogaat defarutuwaat jekk-jekkal pour mën a relancer sa bopp ah ndax ñoom menacé wuñ la uh-huh. waxuñu ne Macky Sall daf fiy jógee dañ ne uh-huh. li ñu gis mooy injustice uh-huh. ak li warul lu normal ci réew mi président nag soo bëggee tollanti bëgg génn ci coow li dangay déglu sino gis nga yaanaa maar di nga gisat leneen lu gën a garaaw yaanaa maar te boo bañee gis lu gën a garaaw yaanaa maar da ngay jàngat ci li yaa yaanaa maar wax pour nga mën cee am loo xam ne doo ci maar li ma leen wax doy na leen kon expert bëri xam-xam expert bëri xam-xam expert wax na dëgg expert bëri xam-xam expert Expert. Expert. Expert. am nañu mbégte contentement ànd ak style sivop moo koy distribué style nag am na façon bu nekk allure black énergie diamant gamu glamour ak spicy waaye tamit euh, camon euh, CX bi nga xam ne nag techno moo koy distribué wax nañ leen am na 6 flash juróom benn flash ñoo ci nekk téléphone la boo xam ne kenn mënu koo sàcc ndax boo ci defee sa loxo boo ko ibbi sa kanam moo koy tëj lu la neex daal si sa organe yi daal sa tànk sa baaraam bu la neexee nga mat ci baaraam mu ibbi ko waaye ku ko sàcc am nga coow parce que la nga def ba kenn munu koo sàcc yaa ko xam ut leen ko mbir mi nekk na loo xam ne nag ci àdduna bi wër këm mooy téléphone bi nga xam ne moo mujj ay ay euh, euh, génn dernier cri dernier yuuxu madaar am na pëndëx am na liquide l'écran bii nga xam ne ne euh, yaaw gervais gis nga ko moo nekk ci ndox mi nekk ci pëndëx mi énergie bi ma àndal moo ma koy jox mbokk yi moo leen may seen émission Kouthia Show ñuy am mbégte ak contentement bu mag di nuy maire Fatou Mbaye maire Fatou Mbaye di bëgg fàllu bàjjinu Karim Wade la responsable politique nekk ca Daara Khoudous ca Mboro di sama soppe maire Fatou Mbaye di bëgg fàllu bàjjenu Karim Wade responsable politique ca daar Khoudous ca Mboro nuyu nañ ko waaye tamit kii sama xarit la alaaji Cerno Moustapha Sow commerçant la ca Sédhiou quartier bu ñu naan Dembaya moom daal bu heure Kouthia Show jotee day tëj bi ne du jaay que Kouthia jeexul ñu ngi koy gërëm di sant suñu père boobu di père Cerno Sow commerçant à Sédhiou quartier Dembaya yal ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram waaye tamit di nuyu maire Fatou Mbaye bëgg fàllu bàjjanu Karim Wade responsable politique ca Daara Xudus ca Mboro nuyu nañ tamit maire Khady euh, jaaykatu brochette ca Koppe suñu loxo yi nag ñu ngi toq boobu ñu ko waxee ba tey ñu ngi xaar ndax cure dent yaa ngi taxaw suñu gémmin di secrétaire di xaar ndawal gi ñëw boo ko joxee karaa xam naa dina egsi waaye euh, euh, ndax xam naa ne gars yi ñu ngi koy xaar ak doole di nuyu tamit suñu chéri ñu naan ko Ndey Mbay madame Thiam di nuyu tamit Fama Ndiaye Moussa nekk ca arrêt 52 ñu ngi koy nuyu Alaaji Dia arrêt 52 Daado nekk ci arrêt 52 de la part de notre ami Thiamas ci boppam moo ñu yónnee loolu nga xam ne mooy dédicace bi kon ñu ngi nuyu Daado arrêt 52 Alaaji Dia arrêt 52 Moussa arrêt 52 Fama Ndiaye ak euh, suñu chérie madame euh, mbay ñu naan ko Ndey mbay di am ca contentement ci la présidente du daayira Rahma Rahma Ajaratu euh, Binta Sarr Jonn ak trésorier ba Adja Ndiaye ñu nuyu tamit suñu papa di Serigne Pape si euh, Pape Malick si bu baaba Babacar si rabiàlla taala anu ñu ngi koy ziar moom bu mat moom Pape Malick si boobu pare ba nag di Massamba Mbeng nuyu nañ ko et tous les sympathisants membres du daayira sans oublier Gaël euh, Gaël Camara euh, aîné de la famille ñu nuyu tamit Ahmed Prera côté logistique ak képp koo xam ne nag wax dëgg yàlla jàppoon ci mbir mi suñu doom la nag mooy def anniversaire tey di pap Doudou Sarr ñu koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram joyeux à Pape Doudou Sarr suñu doom la suñu xarit la suñu soppe la yana ko yàlla may fan bu gudd ak wér yaram di wax nag journée culturelle sëñ Cheikh Rijal Seck le quinze avril lay am ca Colobane képp ko xam ne nag doxantu nga ku xiif ba doxantu côté Colobane lu leer laa la wax ku xiif jàpp ba nga doxantu côté Colobane le 15 avril a Colobane dala ko 8 heures ba minuit berndeel da nga lekk danga nga déglu xasaayit da nga jàng da nga jàngale waaye da nga fa jëlee li nga xam ne mooy yiw ndax Serigne Cheikh Ridial Seck fu mu woote ab yiw la fay woote moo tax bés bi bu ko kenn wuutu di journée culturelle Serigne Cheikh Ridial Seck le 15 avril ca Colobane man nag wax dëgg yàlla xam naa ne du ma fekk waaye maa ngi yóbbante samay loxo te xam naa ne Kara ku fa yónni boo demee dina la représenté ci taxawaay représenté la ci warax kon mbokk yi mbir maa ngi noonu ñu ci am mbégte contentement bu baax di gërëm tamit euh, waa euh, gàmmu Serigne Jim Ndiaye bu Kaymoor ci ndigalu xalif Medina Baay bi ak imam Cheikh euh, Cissé euh, imam Cheikh Cissé bu Medina Baye ñoom la 15 avril la foofu ca kaymoor département de Nioro arrondissement de Medina Sabax danañ fa wàcce Kaamin waaye ay salaatu fatiha wasifa yëpp dana fa am mbokk yi daal kontaan nañu bu baax nag euh, ci sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ Jim Ndiaye ca kaymoor président organisation bi de alaaji Jim Cissé ak alaaji Abdoulaye Guèye ñii ñëpp nag ñu ngi ci woo président de la république Macky Sall ak soxnaam ñoom ñëpp gouvernement bi ak opposition bi ñu teew ci bés yu mel nii dafa am solo trop mbokk yi nag ñu dem seeti Yaya Jammeh lu tax ñuy seeti Yaya Jammeh Yaya Jammeh actuellement état politique Sénégal bii nga xam ne moom la ñuy dund ma nga ca am mbégte bu rëy lu tax mu kontaan nag ñu dem seeti ko parce que wax dëgg yàlla comme que moom dafa nekkoon ci donkaa sigi ñu génne ko ci donkaa sigi dafa ko ci donkaa naqar moom tamit du Sénégal ñu xool Yaya Jammeh ca dëkku Alpha Condé ak la xew Yaya Ouais, André. yes. hey. Awa Konde. naa yaa ngi ci jàmm. xam nga comme que comme man léegi dama am jot. te diggante Guinée équatoriale ak Guinée Conakry benn la. mu ne ma ne xaaral ma doxantu. eh aw ma toogaay. yes. mu ne ma ma toogaay. wuyu ma. yëngali xew Sénégal. Y'en a marre mu ngi toj Sénégal Y'en a gis nga yow est-ce que défilé bi la invité la nga xoolal xoolal bu baax ñëpp a la invité wala ñuy nappe di génn ay matériel di nappe ay saar combat ay ay ay avion yu ndaw ceeli yu ndaw danga seetaan danga seetaan ah léegi man dama xool tuuti rek a marre toj dama kontaan ba xam ne su ma munoon gis Y'en a marre ku nekk dinaa la may xaalis ñu ngi yëngal Sénégal nga naan pour <laughs> because dëkk ba neex na dëkk ba toj na. Sénégal léegi munoo dox ñaari minute Y'en a nga dégg ñu waxtaane forum ba. non ñoom benn yoon lañ def. Eh, dama nekkoon si donkaasi gi mu yaxal ma sama donkaasi gi def ma donka mbeda léegi wuyu ma ma nekkoon président boo xam ne lu ma musa buga dama ko commandé mu ñëw léegi maa ngi ni dama doxantu rek ci mbeda yi hey booy Y'en a toj nañu Sénégal man maa la wax li ay xale yu di di wax seen ay mag di leen tonto. sa problème ak Macky Sall la la mooy sa problème ak Macky ak Macky Sall. mais dama nekkoon ci neex-neex ak ci ñu yaxal ma ko Sénégal gisuguñu dara Macky Sall su ma yàq la yaa naa waaye yaa naa génn léegi te kee boy Alpha Condé dama dimbale ba fay ne yor nga numéro yaa naa nga jox ko dama leen di may xaalis man maa ngi koy may dama kontaan ci ñoom dañu yëngal Sénégal Colobane fees dala ba buuju ruxa ruxa yëpp a fees xale yi gën a la doga maki doy na maki bugutuñu maki doy man so because loolu dana ko def taasu sax ma jox boy ñu génn clip Macky doy na Macky bëggatuñu Macky doy na daga ba yëpp a génn su ma yaakaar moo ko day. Eh, boo yana mari xaw ma fu ñu nekk ci àdduna mais bu fekkee ne mën nañu jël suma numéro man mun naa leen dibali. ma wol nag kan moo taxawaa ne nit ki da laa am nga xaalis nga may ko. kan moo taxaw ne yooyaa warul may ñi xaalis maa ngi gis seen politiciens yi ñuy tonta ay xale di wax ni yi dafa am ñu nekk seen ginnaaw waale lii lii la baro kan moo nekkoon ci ginnaaw de Sénégal moo nekkoon ci ginnaaw ku nekk am nga lu la doy de <laughs> boo yaana mari dañu ma neex du ñu def lu ma naxari moo tax wala foo tollu yaa ngi Macky doy na bugutuñu hey Macky doy na hey Macky doy na bugutuñu ha Macky doy na ñoo ko way Macky doy na bugutuñu Macky doy na hey man Macky doy na Macky bugutuñu ana baro baro baro wowal baro mu wallu la xanaa ne xanaa ne lala juma baay feta Amadu Adama Baro bu nekkoon góor dëgg dafa taaw tontu yanamar na tontu parce que politique u daga jàmbur yoonu kenn nekaw ci moom dafa duggoon suma politique baro na dugal tontu Y'en a eh, na dugal ee na Macky bëggatuñu Macky na ee Y'en a marre Macky doy na eh, eh, ana neex xanaa neex na Macky doy na Macky bëggatuñu Macky doy na maa loo def du ku jaamur Macky bëggatuñu Macky doy na Macky mbaleen Macky doy na Macky bëggatuñu Pikine ba lee am nañu mbégte ak contentement bu mag euh, ci sponsor bi dolli ma solo boo xam ne nag dafa neex mbay nee na ma incha allah suba dinañ am dolli ma kon xale yi jigéen ñooy togg laax yi incha allah xam naa ne laaxu sànkal ak laaxu beneen lay doon ñu daal koy def démonstration ak waa dolli ma yi buñ ko amul tey am ko buñ ko amul suba am ko gannaaw suba Papis Faye nag suñu xarit la moom moo nekk euh, euh, leader bi nga xam ne group Teranga group anniversaire am bi nag wax dëgg yàlla dimanche le 16 avril lay am ca leen mbokk yi di premier anniversaire boo xam ne jour Pâques lay tombel moo taxit invité d'honneur yi ma ngi cey woo ñoom Siteu ñoom Nees et l'ensemble des lutteurs de Diamaguène Sicap Mbao Diamaguène Lansar ñoom Waly Seck chanteur Gorgui Ndiaye Pape Diouf Pape Thiopet euh, Fatou Woré danseur ak yeneen artistes yoo xam ne ku nekk di nga ca teew ndax Mohamed Faye fii wax dëgg yàlla euh, Papis Faye nit ku yàlla baaxal la te anniversaire la boo xam ne da ko décentralisé dana ko def ca yëngu leen waaye tamit dana ko indiwaat ci biir euh, Sicap Diamaguène Diacksao Lamsar gis nga dëkk ba yooyu dafa nekk ay dëkk yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy am solidarité seen biir ndax bëggante bi ak cofeel bi am seen diggante moo tax ñoom lu ñu xewle rek kenn ku nekk da ngay fexe ba doomu aadama yëpp daa ci teew moo tax it suñu xel bu demee ci jagsaaw rek dañuy ziyaaraat suñu papa suñu xarit di Serigne siidi Mbacke alxuraan nekk ca jàmm gën jagsaaw ak amaru Diallo ñu naan ko Lom Talibé bu Serigne Sidi euh, Mbacke alxuraan di garde kooram ñu ngi koy nuyu ak waa rue 1 yëpp ak rue di bàyyi falo Serigne Sidi Mbacke. Euh, alxuraan ñu ngi koy nuyu waaye tamit ñii ay mbër yoo xam ne tamit dañoo wékku ci moom yaakaar ci moom di Mama Lamine ñoom Balla Gaye Junior Farouz Siteu Boul laal ñoom Kona bi nga xam ne nag euh, raqu PK la euh, Pape Konaté ñu koy nuyu moom tamit Kona mbër bu am fula la am fayda mbër woo xam ne daal wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ diggante moom Serigne Sidi Mbacke alxuraan moo taxit dara du ko jomb ñu koy nuyu dëkk foofu ca TP Tivaouane Peul Apix Kona suñu xarit la suñu soppe la ko yàlla defal jàmm Bébé Mohamed Ndiaye nekk ca ak Euh, yaayam ñu naan ko madame Ndiaye papa jaa ngi fii ci a Wakaam aseg naa ñu naan ko euh, euh, Cheikh Omar Ndiaye bo jàmbaari Mauritanie ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram suñu xarit nag bi nga xam ne mooy organiser lamb le 16 avril kenn du tudd turam ndax euh, bii passé am nu mu demee arène Adrien Senghor euh, Grand Yoff kii nag ki may wax ni ñoo bokk koñ de <laughs> bokk ñu fi ñuy liggéey ñoo bokk koñ euh, mise bi 700000 invité d'honneur bi madame Diouf Louis Senghor animation Faye Mbodj ak Babou Faye ñoom ñëpp danañ ca teew waaye nag Thierno Ndiaye ñu ngi koy nuyu ak Ndiouga Sylla Doga Faye Moussa Lo Pape Bey Laye Kéré Ale Fall ñoom Ndiaga Lem almaami Diop ñoom Zal Koppati ak Abo Sakho ñoom ñëpp ñu ngi di nuyu di waxaat joyeux anniversaire bu baax suñu doom Doudou saar di ko ñaanal fan bu gudd wér gu yaram de la part de Diarra Nianga ak toute l'équipe de Kouthia Show ñu ngi ko koy ñaanal moom Doudou Sarr boobu fan bu gudd wér gu yaram waaye tamit di nuyu maire faatu Mbaye bëgg fàllu euh, bàjjonu Karim Wade responsable politique ca Daaru Xudus ak Thierno Moustapha Sow commerçant à Sédhiou quartier Dambeya nuyu nañ ko baax Serigne Fallou Mbacke docteur yal ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram ak mboolem taalibeem gërëm nañ leen ak sama xarit di docteur Fallou Samb nekk ci clinique euh, Louis Pasteur ak tout le personnel ci accueil bu nga xam ne ñu ngi koy defal malade ak ñëpp yàlla may leen jàmm gàmmu Serigne Babacar Sy nag le 15 avril mil 2017 ca Charles de Gaulle maanaam euh, bii di ñëw rek yàggatul dana am xadara juma waaye tamit ñaan yu am solo ndax gàmmu sëriñ Babacar Sy rabi taala anhu bu ñu ko defee ca Ndar lycée Charles de mooy maanam képp ku nekk Saint-Louis et banlieue rek woo na leen ci mbokk yi tonton mag moo nekkoon ci réalisation bi feggoog toog ingénieur bi nga xam ne ci caméra moom tamit ñu naan ko yaaw Gervais sponsor yi ñoo leen may seen émission Kouthia Show carême ak chocolat chocolat ak carême moom lañ dem seeti tey mbokk yi gërëm nañu képp koo xam ne yaa ngi ñuy waaye am mbégte contentement bu mag a mag a mag si sëriñ Ibrahima Kunta ibnu Cheikhu Muhaddamal Moustapha Kunta gërëm nañ ko baax ak soxnam soxna Biga Gueye ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm mbokk yi ñu dem nag seeti ki nga xam ne nag moom mooy chocolat ak carême waaw nu mu demee. yaa ngi si jàmm. ça va macha allah ok yow yaay yi def test bi ah. waaw waaw mën nañu invité woon tey. ok ok pour ma defal leen test. bon. ça va bien. mën ñëw par kenn kenn ñëw waaw ah? si si mën nañu d'accord c'est bon. Euh, premier sur la premier sur la liste. monsieur na nga def. ça va bien. yaa ngi si bi naka la. Samba Yoro ah. ok vous êtes pour le test du chocolat. ok léegi dafa benn chanson booy composé. ok maximum maximum. ok ok ok <laughs> oui voilà léegi nga ànd ak musicien bu accompagné la nga wax ban musique ngay joué. Sokola Sokola Sokola Sokola Sokola. voilà kon ne waay ba dem jëli chocolat bi kon ne waay ba dem récupérer chocolat bi ah. kon ne la kon ne c'est bon. da nga waroon ñam sax avant waaw da nga waroon ñam avant mais comme comme kii nga ñamal. waaw duraata benn kii bu rek bu waaw benn bu gàtt. Eh, dafa jàmm pour baax laal parce que yàlla ñu wee. merci beaucoup merci beaucoup merci merci. Euh, merci jërëjëf jërëjëf merci beaucoup ah. suivant. salaamaaleykum. waaw <laughs> sëñ bi na nga def. ça va ça va bien. grand tur bi naka la. man. ah Ablaye Thioune. Ablaye Thioune. dëgg la ça va bien. nice. yaa ngi si jàmm. baaye. ok da nga ñëw pour test chocolat bi. waaw waaw ok ok. ni mu gisee ne. waaw ayca. ma xool xaar xaar tuuti. ok rek après nga commencé mooy bi ah. ah! ah! ah! oh. ah. sama laa wéruma sama wérul xale yi dem bàyyi ma soxlaa bu may wétali sama jabar dem bàyyi ma soxlaa ah ah. merci beaucoup merci beaucoup ah. merci beaucoup monsieur Thioune. Ah, merci beaucoup monsieur Thioune merci beaucoup monsieur Thioune. merci mu ngi dem taxaw ne merci beaucoup monsieur Thioune. <laughs> au suivant au suivant au suivant pour le test de chocolat ah. ah la suivante. voilà c' est madame ou mademoiselle. c' est mademoiselle. mademoiselle comment. Diop Diop. oui ça va bien. ça va ok da nga ñëw pour tester chocolat bi. waaw damay tester chocolat. ok ok. xëccal voilà. Oh, au suivant ou bien à la suivante pour le test de chocolat dafa jeex ah les candidats ok vraiment li ngeen way neex na trop ah neex na xam naa ne taxale leen dina xaw a jafe <laughs> vraiment au suivant ou bien à la suivante ah pour le test de chocolat ah soxna si na nga def ça va c'est comment mademoiselle Diarra ça va bien vous êtes venu pour le test de chocolat. ok ok oui allez-y. ah c'est super. ah bon ban way ngay way ci sokola bi. chocolat bi ñëwal ni tuuti ñëwal ni tuuti. merci beaucoup mademoiselle Diarra Diop merci merci c'est bon c'est bon c'est bon mën nga ranger wu fële merci c'est bon mademoiselle Diarra au suivant ou m à la eh euh, madame madame kay da ngay ñam chocolat ba pare ñëwal nii madame s'il vous plaît voilà

tur bi naka la. El Hadj Thiam El Hadj bien vous êtes venu pour test de chocolat. waaw monsieur El Hadj

Merci, monsieur Cham. Chocolat. Chocolat. Monsieur Cham. Merci beaucoup. Merci, monsieur Cham. OK. Au suivant ou bien. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen de. ça va ñu ngi fi rek. car bi rombagul nii. car euh, car ligne 44 bi. bon arrêt bi mi ngi ne mais ñun fii dañuy def test quoi dafa am test bu ñuy def nii. test la. ñun la waa société chocolat bi dàq ci réew mi. bi ah. gën ci réew mi. bi ah. gën a baax ci chocolat yi. Ah. waaw dañoo def benn test chocolat. man dama ne ci carême bi. ah nga woor. waaw ok dañoo bëggoon ku ñam chocolat bi rek nga way soo wayee bu fekkee gagné nga ko dañuy génne 500000 jox la ko ak 4 paquets de chocolat kees yu mag yi. loolu tuuti na de. Hmm. Hmm. ndax li ma xam ci chocolat moom foo ñu taxal ma ko pour mu ko koo mais mën nga ko ñam quand dama dama ne ci carême bi. ah. Hmm. wa waaye waaye. je sais pas waaye mun naa la ci defal tuuti rek. ok mun nga si waay ah. waaw pour léegi su ma gañee de moo kañ nga ma koy jox. parce que yëpp wax nañ sàmba Yoro jàll na fi ab Ablaye Thioune jàll na fi. Mademoiselle Diop man kay man kay bokkuma ci candidat bi damay xool rek. Hmm. waaye li muy saf kay ku ko màcce ko xam. waaw mais quand même mos ñam chocolat. waaw mais dama ne ci carême bi. waaw léegi xoolal chocolat bu baax. déedéet. non ko rek bul ma ko taxal fexeel ba taxal ma ko. Ah. bul ma ko taxal fexel bul ko taxal maa ngi xaar nga taxal ma ko bul ma ko taxal bul ma ko taxal maa ngi xaar nga taxal ma ko bul ma ko taxal yow bul ma taxal ma ko eh bul ma ko taxal xanaa munoo ma soo ma taxalee nga xam yow doo ma taxal doo ma bul ma taxal damay xaar rek rek rek. nga taxal ma ko damay xaar rek rek nga taxal ma ko bul ma ko de dama ne ci kareem bul ma ko de bul ma ko taxal eh bul ma ko taxal damay xaar rek rek rek nga taxal ma ko damay xaar rek rek nga taxal ma ko doo ko taxal bul ma taxal yow doo ma taxal doo taxalaate yow yow ni nga bonee yow doo ma taxal wóor damay xaar rek rek rek nga taxal ma ko damay xaar rek rek taxal ma ko doo ma taxal yow bul ma taxal eh doo ma taxal damay xaar rek rek rek nga taxal ma ko yow taxal yow bul ko taxal damay xaar rek rek nga taxal ma ko damay xaar rek ku ko taxal damay xaar dong nga taxal ma ko doo ma bul ma taxal eh, damay xaar rek ku ko taxal yow sañ ko taxal yow ñi ma taxal yow munoo ma taxal yow ni bone doo taxalaate yow damay xaar rek rek ku ma ko taxal. yow munoo ma taxal. xanaa munoo ma taxal. non non. damay xaar rek rek rek nga taxal ma ko damay xaar dong eh ku ko taxal yow doo ma taxal yow bul ma taxal yow damay xaar rek rek yow nga taxal ma ko. eh monsieur. ooy maama. Mm, mm, mm,